parti représenté. merci. gis actualité bi donc point bi nga war a waxtaanee sax contre les inondations Diomaye sort fan yi yëpp. Mhm. Ah, dañoo am ay jafe-jafe. dex bi dafa déborder. léegi nag Matam ñu ngi ci ay jafe-jafe yu mag. Kédougou ñu ngi ci jafe-jafe yu mag Bakel ñu ngi ci jafe-jafe yu mag mhm. donc boo xoolee daal noor bi ak est bi ñu mu toll nii sonn nañu lool lool mhm. léegi nag ci biir loolu mhm. parce que état aussi dafa am responsabilité responsabilité par rapport ak gestion de l'état responsabilité aussi par rapport à la gestion des citoyens responsabilité aussi par rapport à sécurité des biens et des personnes loolu moom la war léegi nag am na lu xew fleuve bi ki indi ay problème léegi nag bi ñëwee fan yi mhm. ñu gis na daal gën nañ ci farlu parce que nit ñi ñu ngi doon ñaxtu sax di wax ne mais ñii seen mbir dafa yéex quoi action bi dafa xawoon yéex tuuti mais fan yi gën nañ ci farlu ci leen débloqué nag huit milliards mhm. huit milliards yooyu nag bi ñuy dem fan yi yóbbu nañu cinq cent ton de riz ak defar nañ fa aussi benn hôpital militaire ak un million de litres d'eau donc loolu mooy wane naa jafe-jafe yi intéressé nee na dafa am lu ma seetlu président Diomaye bi muy dem su tenue militaire bu xoolee tenue militaire am na war na koo mën a sol amul lu tax parce que c'est le chef suprême des armées waaw bu ko solee aussi message la bëgg a joxe hmm. dalay wan ne nous sommes en guerre te bu ñu nekkee en guerre nag dafay laaj loxo yëpp jàpp ci donc profité nañ sa pour faire un appel à la solidarité nationale léegi nag ci biir loolu yàqu tey bari na lool boo xoolee am na ay mille cinquante cinq mille six cent personnes yoo xam ne fi mu toll nii mm-hmm. nekk nañ ci dans la détresse mm-hmm. boo xoolee aussi mille deux hectares mm-hmm. de de de de de surface fi mu toll nii yàqu nañ ci wàllu ci wàllu dundin mi mhm. maanaam mbéy mi lu bari yàqu na fi boo xoolee ci piman bi lu bari yàqu nañ fa mhm. il y a cent soixante quinze ménages yoo xam ne mhm. ñu toxu nañ donc ça veut que situation bu metti metti la uh-huh. metti la donc piment bi genn wàll gi dem na boo xoolee aussi ceeb bi presque lu bari dem na ensuite mbokk mi donc yooyu yëpp day wane ne gouvernement bi daal fi mu toll nii war na gën a kii wane nañ ko nag. wax dëgg yàlla indi nañu moyen mais man question bi muy posé mooy lu tax ba léegi mënuñu déclencher ay plan mm. parce que plan Orsec avantage bi mu am mooy. Mm. tu as une synergie des moyens matériels. Mm. da ngay am aussi des moyens humains. ensuite des moyens financiers. et puis da nga koy mën a coordonner nu mu gën a baax parce que boo gisee ku nekk jaar fii kii jaar fii. ñuy def solidarité sax da ngay gis kiy jaar fii kiy jaar fii mais bu ñu amoon nag benn commission boo xam ne dina ko benn comité boo xam ne dina ko mën coordonner tout sax liggéey bi di gën a yemb man daal loolu laa jàpp ne mm. li ñu def baax na léegi nag di ci des mooy gën a yokk moyen dem sax Ousmane Sonko premier ministre woote na ndaje ak ministre yi mu concerné problème bi pour gën leen ñaax mm-hmm. pour ñu gën a taxaw léegi li ci des mooy Sénégalais aussi mm-hmm. nañ ci gën a jàpp parce que man yu mel ni bu mësaa am ci suñu réew. temps Diouf wala keneen. nga daan gis mu taxaw toog def une adresse à la nation. waxtaan ak Sénégal yi def un appel à la solidarité nationale et même internationale. yooy yàqul la parce que nit ki bu nekk ay jafe-jafe du gàcce. nga wax nit ñi ñu wàllu su du gàcce donc je crois que action yooyu daal moom jàpp naa ne war nañ ko mën a développer. Ah, ñu gën a yokk yeneen action pour gën a yokk te ku nekk aussi jàpp ne. ki nekk Bakel sa mbokk la ki nekk maatam sa mbokk la ki nekk région de Saint-Louis sa mbokk la donc ki nekk Kédougou aussi sa mbokk la te ñun ñëpp ay Sénégal li leen dal mën na dal bu dul lool sax beneen forme kii mën nañu dal te boo xoolee day gën a compliqué rek dans les années à venir parce que fi mu Mali Niger gis ngeen France li fa xew donc ça veut changement climatique bi mooy def ay effet léegi nag li ci des ñoom prévoir nañu ay digues de mm-hmm. protection mm-hmm. prévoir nañu aussi construction loolu c'est pour le moyen terme quoi mm-hmm. du xam naa fan yi mais bëgg nañ def ay digues de protection defar ay route yu adapté fexe daal ba mën mi bu ñëwatee dina waxuñu ñu enrayer ko mais au moins ñu atténuer la la l'ampleur ak la la la la la catastrophe fiscité des dégâts quoi. est-ce que aussi du négligence de leur part d'autant plus que boo xoolee boo xool waa OMVS yàgg nañu alerté mhm. yàgg nañu alerté wax na ne bu deful ndànk fii léegi fan yi néew géej gi dex bi dina déborder. Mhm. foofu état bu Sénégal waroon nañu jël ay mesures préventives pour vraiment jéem a gàttandu mbir moom la waaye gis nañu problème bi am na finalement ñu wëlbatiku ci topp topp ci ginnaaw. négligence euh, c'est ça problème négligence a leur disposition, que ce soit les moyens technique mhm. les moyens informatifs, ensuite les moyens d'expertise am nañ expertise bi yàlla dogal na sunu mbir sur ce plan là ñu nelawuñu mhm. am nañ expertise bi bu lañ la waxee ne yow OMVS alerte ne la ça sera kii on va lâcher yi dina am problème nga bàyyi ci xel wala ensuite météo chaque fois ñi nga alerté mhm. mais sur ce plan daal en tout cas affaire bi des na te nañ nañu bàyyi parce que gouverne c'est prévoir c'est prévoir gouverner c'est prévoir gouverner c'est anticiper donc yu mel nii dafay baax balaa moo ñëw nga jël say matuwaay fagaru balaa ngaa lakkale. mais yu mel ni aussi bu amee dañuy xel di gis ne les politiciens dañ ciy profité di ci def affaire politique ah. Mhm. Euh, le cas de exemple la ci. Euh, xaw ma ndax da doon politique xaw ma da doon jàppale gars yi mais l'essentiel lu wér te mooy am na fa problème loolu tey ji bu ñu ko doon jàngat duñ ko mën a jàngatee ma dem ba. waaw xam nga politicien nag bu la ci kenn nax. Hmm. la politique c'est la gestion des opportunités. Mmh. la politique c'est la gestion des situations. ambition bi sax mën na noble mais du tere day am soubassement politique ambition bi dafay noble parce que yow boo nekkee dans l'opposition l'opposition c'est le dire. le pouvoir c'est le fair yow jëf moo la wan léegi nag yow boo amee occasion aussi wane ne kii dafa dafa franché danga koy def ko aussi moom tam bu wanee ne yow doo dara parce que da dala koy won aussi mm-hmm. mais daal li am solo mooy nañ jàpp nañ positiver action bi nit ku jóg ne damay dimbali say moroom doomu aadama yu bëgg nañ nañ jàpp na parce que Cheikh Amadou Bamba da ko daan faral di nee dans toute jeunesse dans tout interprétation je choisis dans tout tact je choisis l'interprétation la plus généreuse bu faatu mi yore la man tukkulóor bi waruma jàpp ne faatu dafa bëgg a xaar ba ma ah, ba mu jàmm mhm. naa jàpp ne faatu xëy na tey dafa namm ginaar <laughs> waaw moom la bëgg donc ça veut dire dañ ko mhm. mhm. positivité parce que nit kuy jóg pour ndimbal lañ dem bu yeboo nag lim ci lal la moom moo ko xam ñun loolu mais acte bi daal nañ ko positiver. te fexe ba aussi ñëpp di def noonu Sénégal que ça soit le Sénégal moyen le Sénégal politique. ainsi de mhm. mais acteur politique sëñ bi. Ah mënoo ko tere mhm. politique. d'accord ñu wax ci mais la loi aussi c'est la loi aussi. Mhm. waaw la loi c'est la loi. dans ce pays là man d'accord. il faut aussi que les euh, gars yi di apprennent vraiment à di respecter loi di enfreindre la loi. parce que nous sommes régis par un cadre de référence qui la constitution am ay réglement ay loi ku nekk na adopté wu mais ñun ñooñu aussi ñi nga xam ne citoyen aussi am nañu ay droit droit de de de de se déplacer droit de circuler loolu yëpp mais nañ fexe daal ku nekk muy gendarme bi ak ki mu bañ a doon loo xam ne teguñu ko fu dëgër lu ñuy def daal nañ ko teg fu dëgg et Sénégal jëm kanam. Mm-hmm. ci mbirum sinistre yooyu la ñuy la ñuy des sax ñu gis euh, Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp ñu gis muy dem fale euh, ci fi nga xamante ne mooy Bakel ñu arrêté ko fa donc euh, question le pouvoir fait-il donc peur le, jeu de Bougane. le mm-hmm. pouvoir fait-il le jeu de Bougane muy interogation boobu xamante ne xam nga depuis quelque temps. Mm-hmm. seetlu na ne Bougane am na fi ay problème Mhm. njëkk na fi am problème ak la justice. Mhm. am na fi problème aussi hier avec la gendarmerie. Mhm. gendarmerie jàpp na ne ñoom il a fait un refus d'obtempérer mais bu ñu koy analyser sur le plan politique. Bougane dafa demoon pour dimbali ay nit. léegi téye ko. léegi foofu lan la mën a jur mooy il peut y avoir le revers de la médaille. parce que ñu bari. sinistre bi lan lay ban question lay posé wu. Hmm. le sinistre va se demander. kii di ñëw dimbal ma ñu koy. koy tiir benn. tu vois ñu ngi def ay beneen aussi set woon ne bi. Mhm. le buzz a été tenu par Bougane. li xale yi di wax moo yoroon game bi. malgré Ousmane Sonko a fait un grand meeting là-bas. Mhm. giga meeting. arena mais tërëwul li xale yi di wax. Bougane moo téyewoon game bi. moo ko téyewoon. pourquoi mu téye ko parce que on lui a donné l'occasion mu téye game bi prise maa ngi dégg bi may ñëw kii di ko wax. kii nu mu tudd Seydina. Seydina. waaw muy wax Bougane dafa bëggoon ku ko jàpp. Hmm. gis nga politicien boo gis. Hmm. ci feet d'armes mi bëgg na même bu fanaanoon benn bis kaso. fekk 60 ans dina la. dina la en prison. Hmm. donc ça veut que. boo gisee Ousmane Sonko. est-ce que Nelson Mandela affaire bi jógewut foofu ci moom. Ah. non moom <laughs> Nelson sax bokkul ah. non bokkul bokkul kooku beneen cadre Nelson beneen combat la woon. beneen combat la woon kooku beneen affaire du du combat yi de. bokk la ñuy de. Mm. du du du combat de. mais da ko yëkkati après affaire lañ bëgg a wax da koo yëkkati ba mu ba mu accédé après. boo gisee Ousmane Sonko sax am yenn oraay. Mm-hmm. ko doon def yi ñu ko doon def. Mm-hmm. Ousmane Sonko saa yu buggee nemmeeku tur ñu ne ko doo dem fan lañ ko tegoon dem na fi ñu barricade ko téye ko def ko lu nekk léegi nag loolu moo indi ci xolu Sénégal yi un sentiment d'injustice gis nga Bougane bu ñu ko nee di ko def di ko def nii day dem ba mujj gi mu doon un martyr le régime actuel doit éviter de fabriquer un martyr en la personne de Bougane parce que Bougane boo interroger histoire li xale yi di wax fan la toj il s'est présenté à une seule élection locale te jëlu sa troisième ci ci fu dëkk moom donc soo kooku boo xoolee fan la toj léegi yow nag boo ko toppee nag di ko persécuter day dem ba mujj bi day doon day doon on day doon on en train de construire de manière inconsciente un clone de Ousmane Sonko gaa yaa ngi koy wax ne yaa ngi sonko sonkolu mais bu ñu continuer nii di ko persécuter di ko dem da mujj gi de sentiment boobu mooy dugg ci Sénégal yi kii dañ ko sonal dañ ko sonal finalement day gën a am kii donc c'est l'erreur à éviter mais doyen hmm? euh, Bougane bu muy dem Bakel moom ak euh, Anta Babacar ñoo àndoon ak Thierno Bocoum mais pourquoi ñu cibler la personne de Bougane parce que ñoom jàpp nañ ne gendarme yi dañu jàpp ne moom teguwul ci yoon li ñu ko wax moo moo kii. moo jiitu woon aussi moom moo jiitu woon te li ñu ko wax moo bañ. ñeneen ñi defuñu comme moom. moo tax il était normal d'après les gendarmes que ñu téye ko fanaanoon ko foofu il sera présenté aujourd'hui devant le procureur mais tout compte fait man jàpp naa ne pouvoir bi dafa am sas bu rëy. mais mais mais. Euh, mooy sas de la rupture. bu ma la déggee ma dema yow dafa mel ni que bëgg jox benn impunité bu gaan quoi. mais joxuma ko ah impunité de parce que aussi du question que ne Bougane dafay nekk rek parce que opposant la dañ ko war a créer martyr bu lu ko neex mu def ci réew mi y a des lois déggoo li ma la ak ay règlement ay lois yoo xam ko ne Bougane dem na problème dem dem na Bakel ñu téye ko fa jël ko daal di koy dugal ci kaso bi rek état bu Sénégal dafay créer martyr du martyr parce que moom moo enfreindre lu loi yi ki dégguma bale maa maa dégg baax a baax xam naa dama ne bu ñu continuer <laughs> maa ngi dégg baax a baax dama ne dama ne bu ñu continuer di ko def nii day dem bu mujj day ma nekk martyr loolu laa wax waxuma la martyr la de dama ne bu ñu continuer di ko def nii day dem ba mujj nekk martyr parce que da ko war a ignorer bàyyi ko ci ah. euh, wala la ñu bàyyi ko muy def lu ko neex mhm. parce que la liberté du citoyen ne signifie pas libertinage la liberté du citoyen ne amul Bougane dafa dëkk ci réew mi doon citoyen am lu mu warloog société bi am lu mu warloog loi yeeg réew mi waxuma loolu de mais dama à force de donner l'impression qu'on le persécute on finit par en faire un martyr loolu laa la wax. d'accord. Bon. Euh, sujet Seydina. non ma nga ànd ak man. non non c'est que su kuréel kuréel la nekk rek man li may wax non c'est normal quand même c'est normal. c'est normal cherché wu ma nga ànd ak moom bu doon xam naa am na ñu dul ànd ak man loolu. non c'est normal aussi. unanimité sànni c'est c'est normal quoi même yàlla ju ñu sàkk sax. c'est normal yàlla ju ñu sàkk mhm. dafay. day day créer doomu aadama waa ju taxaw ne ko gum wala doo dara je n'existe pas mm-hmm. waxtuma la un petit Demba Ramata qui mm. <laughs> a de petites idées mm-hmm. qui n'est pas assez intelligent pour pouvoir comprendre beaucoup de choses quoi mm-hmm. voilà donc muy euh, loolu buggaan bi daal kon mën nañoo jàpp ci ci ci côté euh, moom jàpp ne ne population yi yi fay dem euh, dañuy jàpp ne ñoom seen côté lu tax pourquoi ñuy téye kii nga xamante ni dañoo war a jàppale. Eh, ci ci analyse su euh, doyen Mademba Ramata Dia mën nañoo jàpp loolu Seydina. ah non non dem non dem li mu aussi c'est logique mhm. parce que. dafa jàpp ne bu fekkente ne Bougane ñu ngi koy bàyyi muy demee ci nii. chaque jour bu amee problème gars yi jël ko daal di koy tëj ci kaso bi. wala jël ko daal di koy kii bu baax peut-être mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko mën nañu créer martyr. Mhm. mais aussi il faut gars yi comprendre ne Bougane comme ni ngeen mën nañ créer le. mooy fi mu waxee ne dafay dañuy créer clone bu mel ni Ousmane Sonko. le cadre Ousmane Sonko ak le cadre bu Bougar si diamétralement opposé parce que boo fàttaliku Ousmane Sonko ba muy bu mu demee ba commencé changer fusil d'épaule état bi moo ko fan changer fusil mooy bañ demee ba nga xam ne dañ ko accuser problème Adji Sarr. parce qu'ils ont dit que kii c'est un candidat boo xam ne candidat bu sérieux la mm. te adversaire la peut mën nañ dem mën nañ ko sàkkal pexe moom moo tax ñu indi le dossier de Adji Sarr moo demee ba ci biir xam ne li nekkutu dossier juridique ci la jékki-jékki wax te woo garsa garsa c' contraire ak le cas de. waaw mais de parce que parce que parce que parce que parce candidat boo xam ne nii. j'ai comme l' impression dafa am benn dent bu mu am. ak ce pouvoir. parce que chaque jour bu ñu génnee mu génn. te balaa ngaa génn aussi da nga. war a mûrir sa idée en mhm. ne prenait pas Sonko au sérieux. au sérieux. en 2014 il son poste de député par le plus fort reste. avec 33 000 voix. kooku boobu il n'était pas un danger pour la République. mais ba de ñu demee nag ba ay deux mille dix neuf mille vingt bu Ousmane Sonko boobu bi ñu topp di persécuter depuis des années moom mujj a doon benn Ousmane Sonko boo xam ne c'est un danger pour la République. boobu nag la Ousmane Sonko. gis nga l'histoire boobu la fii tamit le ah, si yaa yaa xam xam nga ni da nga koy da nga koy xeeb da nga koy xeeb nii di ko soxla ah. euh. mu dem ba mujj gi. mu am doole Ousmane Sonko en 2014 qu'est-ce qu'il il a acquis son poste de de porte plus fort 33000 voix la am. donc ça veut dire qu'il ne représentait pas grand chose. Mm-hmm. mais àdduna di dox ba ay mm-hmm. ak persécution yi ak il faisait trembler la république. en tout cas merci uh-huh. merci doyen Mademba Ramata Dia Ablaye Wade mi mu doon wax